ñëw nañ fi coalition Adiana dirigée par le ministre euh, Mame Thierno Lo bu Darou Moussi tey jii ñu ñëw ci département Mbacké ci délégué régional bi di Pape Diouf pour jox ko euh, suñu euh, li nga xam ne Mame Thierno ak waa coalition Adiana ci diirub weer ci biir Touba liggéey nañ ko fi wàcc ci biir terrain bi former jigéen ñi ànd ak ñoom taxaw leen ba taxaw ba am parrain yoo xam ne tey jii nii ak lu topp yoo xam ne dañ ko démarrer même pas un mois te dañuy continuer di liggéey fii ak fin novembre bëgg nañ jox président de la république 5000 parrains te dañuy xamal ne président que ne bañuñu ko Touba ñi fi nekk ci boppam ñoo doxul lu ñu war a dox ñun nag dañu dugg ci terrain bi dem gisanteeg askan wi fexe ba euh, président de la république. ñëpp woteel ko ci Touba te loolu ci lañ nekk te loolu defe naa ne incha allah ak maam Thierno Lo ak coalition Àjjana incha allah rabi danañ ko am. dañoo walante ànd ak maam Thierno Lo ja jàppale ko ndax ñu amul lu président président wóolu ko am lu mu ko sant ci Touba mu di ko ko seetloo mu tànn ñu andi ñu ñu fas yéene ko ànd ak moom. te ànd mi nag yemut fi incha allah ñoo moom ba dugal ko premier tour. néew nañ fi lool waaye andi nañ fi lu fi kenn andi ndax ñun luy fulla luy dëgg lañ fi andi copié wuñu foraatu wuñu neexle waatuñu jënduñu kenn dañ ñi ñu amoon démb ak barki démb ñu lool ñooñ lañ àndal pour ànd ak Macky Sall mu gagné fii Touba. bi commencé léegi matagul weer te génn nañ fi génn nañ fi 2000 signature te 2000 signature yooyu maanaam formation yi moo ñu ko may. ndax Thierno Lo moo ñu financé ñu def ay formation ci tuur yi di ko def ci ndaje yi ba am ba am liñ ñu bëgg a am ci ci formation yi. léegi nag li ñu bëgg mooy jàppale waa Touba jàppale suñu responsable yi ñu ànd ndax sonn nañ ñu ngi ci terrain bi guddi di ci terrain nekk ci terrain bi bëccëg Macky Sall nag kenn bañu ko. li la waroon na moo ñun amuñu benn ndoom mag tàng ci Touba te na nañ génne nañ ci 2000 signature kon nga xam ne ñu su amoon ndoom ak Touba ci amoon ndoom ak tàng ci Touba luñ bëgg danañ ko am. kon nag ñu ngi ñaan ñëpp ñu taxaw jàppale ñu maam Thierno Lo ñu ngi lay ñaan nga gën a weddi sa ngemb jàppale waa Touba ñu fas yéene fal Macky Sall premier tour.